Cheikh Omar li nga xam ne moo di la presse mais lu ñu gën a àddu mooy ci 100 jours yi nga xam def nañ ko ci nguur gi dafa mel ni que Ousmane Sonko moo gën a fës ñu bëri sax dañ jàpp ne Diomaye doit prendre ses vraiment euh, li nga xam ne moo di ses marques justement pour wax Ousmane Sonko mu bàyyi li muy def naka nga ko jàngatee. loolu wax la rek <laughs> xam nit moom. booy wax yaa xool li la neex nga wax ko ci. parce que tu peux regarder tout un écran et voir peut-être un point noir ou un point de de de, moi je crois même da ngay xëy sax ñu naan la ay des oiseaux de mauvais augure gis ay catastrophe Sénégal la ñu am ay spécialistes yoo xam ni ils ne vont que voir du du noir et pourquoi ça. mais moom Momar Diong moo ko il est nee naa la nga bàyyi di ma citer ay tur. waaw mais eh, def benn c'est son problème c'est son engagement xalaatam laa. waay waay man sama xalaat laa xam. yow yaa ñëw wax ma lu dëgg jëwre. waaw maa la wax kay waaw. waaw allez-y man je suis démocrate. waaw mu neex waxal sa xalaat. dama ne. mais est-ce que nekkul woon constat que t'as aussi. waaw moom nangul naa ko constat man am naa sama constat. waaw allez-y sa constat. xam man ñëw mu fi pour constater. constat wu keneen. man sama constat moom fi indi. en ah, théorie du dëgg. ma ne. waaw sa constat Cheikh Omar. très bien en tant que Omar Talla. waaw <laughs> ah, boobu may neex. ma ne. Euh, si presse bi. ñu am rôle ak responsabilité je veux je veux pas dire que la presse doit se en jëwre mm-hmm. pour euh, lu ñëw rek nga ne gongo même lu gongowul nga ne gongo presse dafa war a nekk outil d'aide à l'information décisionnelle parce que mm-hmm. quelqu'un qui manage il a besoin d'information parce que tey presse moo war a jouer le lien entre lu gouvernement et le citoyen mais mu nekk mu koy jox la bonne information su waree critiquer mu critiquer lu objectif mais xam nga débat bi tàmbaliwul tey. Mm-hmm. lan moo ko fi indi. moi je pense que euh, Ousmane Sonko bu amul woon générosité parce que am na ñeneen ñoo xamante ni situation bu mel noonu dal na leen dañ ne bu dul man du keneen. ma yëf ya yàqu. Mm-hmm. moom au moins mu am la générosité accepté. li nga xam ni bu sañoon moom mu nekk candidat ñamu àndal bu ñu sañoon mu nekk candidat je crois que jomaay mi toog ne fukki at maa ngi xeex ngir fal Sonko waaye yàlla dogal moom ci fukki fan mu fal ma nañu accepté nii yàlla moo boole ay nit. nañ ko accepté ensuite man de mon point de vue sur le plan politique je crois que euh, Sonko dafa nekk une aide précieuse pour Diomaye en fait nag Sall n'avait pas de bouclier. Macky Nawe c'est-à-dire tanalise je t'analyse du point de vue politique le premier ministre it te sert toi de bouclier il te protège c'est-à-dire même ñiy jouer échec dañ lay wax dafa am la ren mais ren bi dafa am lu jiitu ci kanamam loo xam ni moom moo koy mooy nekk mbalaanam diggante ak yenn yenn mbir yi parce que par exemple quand le président s'est déplacé à Mbourkat c'est bien mais tey su premier ministre bi di dem mooy nekk son fusible Sonko est au tey personne n'attaque Diomaye seetlu nga lool. waaw lu tax. parce que Sonko moo gën a fay. parce que Sonko moo nekk au front. oui Sonko quand il est au il libère le président il permet au président d'avoir une marge de manœuvre donc pour man euh, ça ne doit pas poser problème moi je m'attendais peut-être que ci 100 jours yi que l'analyse soit plus pointue. oui que l'analyse mu dem sur une analyse du point de vue économique du point de vue social quel fan la sénégalais toll ñu jox micro sénégalais laaj leen euh, parce que sénégalais ñooy tànn am na sax ñu toog naan waaw état de grâce jeex na du ñoom ñoo koy déterminer du ñoom ñoo koy décider sénégalais bi fal di folli moom moo xam fan la toll parce que ku si nekk nga am contrat ak ci li nga dem. li tax nga dem ba voté yow kese tu as un contrat tu am nga ay attentes am nga looy xaar am na mbir mi di ko am noo ko ressenti ak benn pressentiment yow yaa ko comprendre donc pour man euh, ñu ngi dugg ci benn débat boo xamante ni nañu bàyyi ñoom ñaar comme ànd nañ ba ñëw. Euh, te ñoom ñoo ngi koy doxal parce que les gens ne sont pas posé un problème entre Mbaye Gueye Faye Youssou Ndour <laughs> pourquoi. oui voilà. c'est ànd bu yàgg bi dëgg la bañ na ko sax Youssou Ndour fu mu woowee Mbaye Gueye bu ne ko Mbaye Gueye <laughs> <laughs> Mbaye Gueye la mais ça n'a pas posé problème. Mm-hmm. comprendre mm-hmm. et puis euh, kii mooy le président de la république kenn mm-hmm. mënul fexe ba du nekkul président de la république. dafa fekk mu demee ni mu demee waaye su dem woon mu demee du demee ni mu demee donc nañ leen bàyyi ci loolu ñu nekk c'est-à-dire Sénégal dafa mel ni bëgguñu sax gis ñaari nit c'est-à-dire maa ngi sax le fait que ñu ànd si émission bi sax bu da nga gis ku ma woo ne la <laughs> non gaan yow waroo toog njaase lii wala sax ñu dem si njaase naa ko noo yow loolu lañu war a baax léegi nag revenons man sama point de vue sur les cent ans mën naa ne sama xel dal na ah bon waaw bis bu ma demee ba gis lu dalul sama xel tam ma toog ne la sama xel dalut ok kenn moom ma li ma si njëkk a neex te ma remarqué ci. Mhm. grand. Mhm. mooy leadership dafa am lu koy accompagner. nañ mhm. ne woon leadership dafa war a am lu koy lal muy d'abord la compétence la connaissance mais surtout la communication parce que euh, même yàlla mi defar àdduna sax dafa wax ak ñun. du dëgg jaasi. wax ak ñun ci li mu lan mooy projet am yàlla daa am projet <laughs> société. wax ak ñun ci projet bi parfois mu wax ñu nag mu neex ñu consommer. parfois ñu bañ a consommer. am na ñoo xam ne naan du ma déglu Taïb Socé parce que moom kii côté bii rek la lay donc mhm. pour man jub jubal jubbanti triptyque boobu. Mhm. warutul nekk discours chaque Sénégalais doit se l'approprier. il faut que ñu am société boo xam ne dañuy jub te pour ñu jub jub dafa bokk suñu ay valeur jub ak maanu dafa bokk suñu ay valeur mhm. déjà nga ñëw la ñu naan yonent bi al amin parce que dafa jub nekk koo xam ne nit ñi doyloo nañ ko. il faut ñu dugg am na benn waykat euh, doon wax naan ceeb amul kurus waaye ak ay valeur ok <laughs> valeur ceddo c' est des valeurs dégg nga lim la ceddo amul kurus. mais du wante du rus. mooy nit ku am jom da ngay am looy jomb. jubbanti. Mhm. ñu jubbanti boo jubbanti nag lu dëng du neex. du yomb te man dama jaam sax boo jubbanti sax ndaw ñu ngi mais am na mag ñoo xam ne dëng nañ ba pare. <laughs> pour nga jubbanti leen très satisfait ci bilan au change j'ai pas ah. dit que faire dire ce que pas dit. ma soxla soxla waaw ce que. waaw moi ma ne ma ne su ma su ma xel dal na. ci li nga xam ne <laughs> ci jéego ñu teg parce que dama jàpp ni. ci trois mois munoo ci xayma. loo xam ni juróomi at la. parce pour nga mën a juger un dafa am terme. Mhm. dafa am fu mu commencé am fu mu jeexale. Mhm. le meilleur bilan mooy bu demee ba ci jeexital bi. nga mën a xool fi mu jógee fan la fekkoon mbir mi ak fan la ko yóbbu lu dëgg mm-hmm. waaye li tax ma ne la xel dal na mooy dafa am ay màndarga yu ma gis yoo xam ni mm-hmm. yu may naw la xam nga mooy lan waaw autorité koy am kuy defar mënoo neexal nit mais dañ doon am régime yoo xam ni pour des raisons politiques bu mm-hmm. jógee ne day laal lu jëm ci wàllu transport syndicalistes yi jóg sama ñoom papa góor xuma ñëw yëngal gars yi dellu ginnaaw mais bii amul loolu régler leen transport wàññi leen prix ngeen bañ ñu dem jëli Dakar dem dikk tuur ko fa wàcce ay soldats ñu dawal ngeen xataraayu ñu defee ko noonu moo tax vous obligé ngeen rangé wu mm-hmm. dund bi les meunier avec ce qui s'est sur la farine mm-hmm. ministre bi toog ne mii def nga bénéfice su quatorze milliards te xam nañ activité frauduleuse yi ngay def wàññil par force tubaab yi génn waa ji bavaar la du commencé expliquer inflation waaye bu mu xëyee nangu na au-delà de l'autorité pour man ils ont privilégié l'intérêt général au détriment d'intérêt personnel mm. mm. du dëgg mm. beneen bi opposition day am te xam naa di nga ci dem parce que sénégalais ñoo àtte ne yow yaaw yaa falu yow mi nekkoon ci opposition fukki at kaa nga falu Uh-huh. yow bi nga xam ne yaa fi toogoon fukki at ak ñaar wàccal kaay demal nga opposé wu mais nañ ko teg ci règle ak objectivité mm-hmm. donc pour man c'est très taux et très prématuré de pouvoir juger et de pouvoir jauger mm-hmm. euh, par rapport à la gouvernance maintenant du point de vue euh, économique am nañ ay ak yoo xam ne mën nañ ko conserver mais sénégalais li ñuy gën a xaar mooy la redistribution des richesses et cette redistribution des richesses passe ki war a fay fiscalité na ko fay ki war a fay lempoom na ko def ku sàccoon na ko delloo si ba alal jooju ñu ñoŋal ko ba war koo duggal fi ñu ko war a duggal ba sénégalais yi maanaam Macky Sall yoonu yokkute la waxoon ñun dañu war a romb foofu nekk ci yokk ba yëg ko réew mi nag yoonu yokkute daa am ñoo xamante ne ñoo ci amoon yokkute du <laughs> askan yëpp ci am yokk leen nañ fexe ba askan wi yëpp toll ci yokku ba yëg ko ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu dundin ci wàllu jàng mhm. et ñoom ni ñu gat sa gat sa ak transporteur beeg boulanger nañ ko gat sa gat ak locataire pour que location mën a wàññeeku